maa ngi nuyu mbokki presse bi di nuyu suñu yaay yi ak suñu pàpp yi toog tey jii di wax ak àddina man bi ma juddoo ba léegi maa ngi door a gis circonstance boo xam ni dafa émotionnel yaa naa journaliste soo leen xool da xam ne seen yaram wala seen kanam am na lu ciy feeñ te kenn képp nag moo ko waral kenn képp muy Macky Sall parce que dañ koo dénk suñu réew moom mu jël loolu di ko xeex aw askanam parce que liñ fi wax soo ba léegi injustice képp la wax ma jàppal nag wax ji farankulaayu na ñun bi ñu nekkee déta en détention rëbës président wala l'ex président mag sàll daana day woote dialogue ñun détenus politique dañuy jël suñu responsabilité fexe ba président dégguñu Ousmane Sonko. ñu ne ko ñun demuñ si dialogue ñun dialogue wuñu fekkee Macky Sall si dialogue boobu lay sukkandiku pour def santa pour woola ñu ñëw waxtaan ak moom ñun demuñ bul dem parce que dañ ñoo tooñ kon li détenu yi wax démb moom lañu waxaat tey kon nag détenu yi li wax moom la seeni yaay ak seeni waajur fekk si ne ñoom dialogue wuñ amnistie wuñ ñaanuñ dara li ñuy ñaan mooy nañ bàyyi seeni doom soit ñu àtt leen bàyyi ñoom comme niñ ma def téye ma atu yàlla ne ma defoo dara demal ñibbi soit Macky Sall def ay pexe ba bële kon li may wax amnistie Macky Sall sa amnistie ak sa dialogue famille des détenus politiques ak yi nekk Rebeuss ñu nekk Cap Manuel pavillon spécial nekk Ziguinchor nekk Louga nekk Diourbel nee nañ ko xotteet am lu ñu njariñ yaa jàppe doomu jaamur bàyyi leen loolu rek la ñuy ñaan ci yow ñaanuñ leneen ñaanuñ njekk loolu moo am c'est la réalité li am rëbës nag fan yi dafa métti dafa métti ci xol loo tax may ñaan Sénégal yéen ñëpp góor jigéen mag ndaw ba ñun ñii les anciens détenus ñun ñii les ex détenus su jaree samedi ñu jàppaat yóbbaa ñu rëbës danañu jàppaat yóbbaa rëbës may woo ñëpp tous les anciens détenus parce que ñun dañoo génn ñu nit fàttuñ suñu ay rakk fàttuñ suñu ay xarit fàttuñ suñu ay jarbaat biñ génn ba léegi ñu ngi seen cause di leen xeexal moo tax ñu créé benn mouvement des détenus politiques parce que quoi qu'on puisse dire rek gor gor rek la mën a doon nit mënoo ànd ak moom ci métit nga génn moom mu des ay métit nga toog di ko seetaan loolu damaa jàpp ne trahison ak la lâcheté ba tax na depuis presque deux ans li may wax Macky Sall encore une fois foofu dama ci dama ciy bàyyi xel baax askan wi mooy Macky Sall bi mu jàppee booy yi bi mu ñu jàppee ñun ñii depuis presque un an mi ngi ciy daw pour bàyyi leen pour am pexe pour ba leen ñëw na auprès du mouvement ne jox lañu liste pour ñu bàyyi gone yi ñëw nañ si ñun ne jox lañu liste ñu bàyyi gone yi liñ koy wax nag mooy sooy bàyyi bàyyi ñëpp parce que dafa téye ay doomu jàmbur diaboliser leen am ñoo xam ne ñaari at ñu ngi ko am rëbës ñu leen wooye les forces spéciales te man mii fa nekk sàmm rëbës yëpp kànnaaru 2000 francs moo koy tëj waaye kuñ ne ab terroriste la kuñ ne ab force spéciale kuñ ne commando la kuñ ne moo ñoo taal bis yaraax ba pare kànnaaru 2000 francs mooy tëj seen i sàmm mënuñoo dajji kànnaaru 2000 francs mais ñun ñu ana terroriste ñu xam ne nii mosu ñoo jàkkaaru benn garde pénitentiaire xeex ak moom wala ñu rep def benn répression wala benn violence envers les envers les gardes ñu xam ne su ñoo jekki-jekki sax def tentative ne dañuy rëcc ci kaso bi nga ne ñooñu ñoom ñooy ñoom ñooy ay jihadistes il faut arrêter suñuy bàyyi nañ bàyyi ñëpp duñ bàyyi ñii te yeneen doomi jàmbur yi fan yi li fi am man damaa jaaxal yow noonu da ngaa bëgg bàyyi détenu politique yi te yow ne nga ne woon ñii duñ ay détenu politique parce que bu ngeen fàtte ancien dialogue bi lu mu waxoon jàpp ma ay détenu politique ay délinquant laa jàpp ay agresseur laa jàpp ay rayko nii laa jàpp moom day wax di day day goqi ba pare wan naat ko bërki dee mu ñëwaat daane noono na ministre de la def lu mu gën a gaaw ba ay détenu politique yi il a moo le mot détenu politique kon la ko Ousmane Sonko waxoon moo am ñu ngeen jàpp defuñ dara soo des zéro cent léegi nag li koy wax mooy si bàyyi na ba ñëpp mënta bàyyi ñii téye ñi mënta nekk mais ay ñoom Fadilou Keita ngay jàpp ay nit ñoo xam ne dañu ay pose question Fadilou Keita lan la def Hannibal Djim lan la def Ibrahima nee lan la def kenn ku nekk man su ma doog fii di ko lim yàlla xam ne ne suba fii damay fekkaat mais on est dans quel pays ñu ne léegi loolu dañ ko war a négocier quoi daf ñoo war a woo si dialogue képp ku def si dialogue bi c'est la lâcheté et tu as trahi ton ma loolu laa gëm c'est la réalité ñaanuñ ñaanuñ amnistie ñaanuñ lenn li ñuy ñaan mooy ñu atte booy yi wala ñu bàyyi la ñu dem parce que ñu leen jàpp xoolal famille des détenus pour ñi fi wax ñëpp ñii ñëpp ngis nii ñu yàgg wotee Macky Sall la seeni doom peut-être ñoom ñoo am benn benn amour vis-à-vis d'un leader mais loolu loolu du délit kañ la nekk délit faral nit ñu jàpp la yóbbu la kaso man mii di wax ak yow kenn xamul lu ma jàppee damaa jekk-jekk ñu yóbbu ma jàpp ma tëj ma ba pare ñun ñuy jàpp ñëpp ay actes quatre-vingt la toppee ay actes et manœuvre en contre la publique ay appel en insurrection yu kenn xamul des gros ñu xam ne ñoo fekk Pape Alé Niang fekk na ko mu tëdd si lalam ñu jàpp ko yóbbu ba pare ñu ne ñii doom tey ñoom ñoo nekk ay terroriste seeni i doom tey ñoom ñoo taal ay biis te dara amu ci lépp ay nar la kon li may wax mooy détenu politique yi li fi am bërki démb mu nekk mutinerie mooy yaakaar gu ñu amoon si élection présidentielle ñun nous demandons des élections libres et transparentes in inclusive mu mëntuñ ko wax inclusive mu mëntuñ ko wax mais li ñuy ñaan Macky Sall mooy ñu nga organiser ay élection jomaay bokk parce que moo suñu seul espoir man mii ma nekk Rebeus Pape Fara mii nekk sama ginnaaw bi mu nekk Rebeus ñun ñii ñëpp ñun ñii ñëpp dañoo amoon yaakaar ne élection yi su amee ñu dañuy génn suñu fekkoon Rebeus suñu fere ñu bàyyi leen fu ñu amoon benn yaakaar ñoom en personne dañu noo woon nañu jóg ngir yàlla tempérer tension yi bu ngeen manifester bu ngeen def dara élection yi ñu ngi ñëw dañuy génn ñun ñëpp ku nekk sa doom dalay woon ne la yaay moytul moytuñu bañ laa jàpp yaay dañuy génn mais après le 25 février ñu naan ñu ay dañuy pousse à élection yi wala 9 mois d'ici 9 mois ko xam ne dañ koo tooñ benn fan rëbës waru ko benn fan waru ko am rëbës ñu war koo bàyyi ñu ne léegi dañuy pousse élection yi nañ dialogue ñu pousse élection yi léegi doomu jàmbur yi nag léegi ñii souffrance bi ñuy dund presque 2 ans ñu koy dund di jooy permis de visite pour nga am ko seet tout un problème dama koy delloo si fii cabine mais de visite. depuis deux mois joxul permis de visite gars yi dañuy raj ay bureau ñii ñëpp dañuy raj ay bureau am na keroog maa fa fekk ko xam ne Tamba la jógee doom lañ jàpp fii Rebeuss ñu refusé ko permis de visite ñii suñuy gis seeni doom cinq heures du matin la ñuy yeewu cinq heures rang cinq minutes koy gis presque yaa ngi koy gis ay quatorze heures quinze heures loolu dafa war a continuer institut dafa war a continuer mit neri am na parce que yaakaar gi ñu amoon tax ñoom it une jour après nee nañ après le 2 avril lépp lu mën di am ci détention arbitraire yi lépp lu ñu mën di am Macky Sall lañu jël comme responsable après le 2 avril parce que fan yee dañuy mutinerie moo am mais li am jaay doole la parce que chambre 48 la amoon mais ay jeunes yi xam ne amuñ arme yoruñ dara nga ñëw jël lacrymogène sànni leen ko ñu nekk rëbës biir rëbës prison biir rëbës nga sànni leen lacrymogène xam ne alentour bi sax jaaykat ñëpp dañoo daw ñii mën nañ ñu ko bi ñu fa demee fekk fa benn jaaykat li gën a métti nag li gën a métti mooy après loolu ñu xañ leen visite xañ leen TC mooy télécentre xañ leen ay cour man mi jaar rëbës xam naa gis nga rëbës bàmmeel la kaso bàmmeel la ku fa jaaru bu noo xam ne fa nekk mais ñun ñu fa jaar soo xëyee ñu ne cours bi 9h la wala 15h da ngay kontaan pour 15h jot wala 9h jot pour nga génn pour nga am benn pas faram mi sama ginnaaw bi ngi may mi may dégg xam na baax li may wax da ngay pour génn ku demoon sàmb 9 sàmb 10. nit ñi suñuy génn cour soo tegee sa tànk dañ koy damm ndax yàkkam bi ñu yàkkam parce que dañuy njëkk a ut ndox ci biti loolu moo am c'est la ñu xañ leen loolu durant une semaine ñu couplé avec le reste suñu parents yi di woote ñii woo Fatima Mengi ñii woo waa Frapp ñii woo Diop Taïf ñii di Pa Fara sama doom ci lu nekk sama doom ci nekk ne lu ma guddi durant une semaine boobu encore ñu bokk ko andi refie ak neuf mois ñu loolu est-ce que yoon la biñ jàll ci loolu ñu dégg ñu ne waa sàmm kàddu ku ci mel ni yarga si ay Mor Gueye commandant dañ leen yóbbu Sambal Keros Sambal Keros bi ba nekkoon man Sambal Keros nekk naa fa 7 mois 7 mois mu bokk na ci sàmbur yi gën a métti rëbës 3 4 9 10 14 41 man nekk naa Keros 7 mois 41 nekk naa fa 3 mois fa laa libéré ñu sanctionné leen lu tax. ba léegi ñu ba léegi ñu ngi Keros ba léegi ñu Keros man xam naa Keros Keros sàmbur et quelques personnes ñoo fa nekk benn douze moo fa am. bokk na ci sabar yi gën a tàng rëbës parce que waañ spécial fa la nekk man xam naa baax li may wax ndax la dañoo ñàkk yaakaar benn discours lañ dégg mooy élection dañ koy rapporter dootu am ñu ne leen kon yéen seen liberté dañ koy bàyyi fii neuf mois ñu ñëw di naqaru di wax ne ñoom dañoo métti ñu yóbbu leen gën leen investir waat beneen beneen beneen beneen souffrance en fait li may wax daal mooy na kilifa diine jël seen responsabilité parce que rien n'est encore lii ñu ngi koy door a gis si àddina parce deux mille et quelques personnes nga téye leen ci lan dañoo far ko xam ne nii ànduma ak moom loolu dafa war a jeex ci biir réew ñun nag la ñuy wax encore une fois ñaanuñ dialogue ñaanuñ dialogue lii suñu yaay def ñu ñoo ko waroon jiitu ñun ñoo xam ne les anciens détenus ñu ñoo waroon jiitu lii si ñoom mais incha allah bi samedi ñun ñooy jiitu nous sommes dans nous serons dans les devants incha allah bi nii ko suñu yaay defee def conférence presse ñun ñii suba wala gannaaw suba danañ def conférence presse appuyer leen jàppale leen taxawu leen parce que moo ñu war wasalaam.